asalaamaaleykum euh, mbokki téléspectateur u Equivox TV comme ni ngeen ko gisee nag tey euh, groupe Equivox TV équipe bi dañoo déplacé wu dem fii nga xamante ni moo di Mariste donc tey nag ñu demoon jël ay quelques éléments yoo xamante ni dafa concerné li nga xamante ni mooy visite technique donc ñu jagleel ko dawalkatu oto yi bu ñu waxee visite technique si lan ak lan ak lan la ñuy def ci oto yi waaw visite technique moom mooy sécurité oto oto pour mu apt dafay am visite technique donc visite technique nag mooy li lay sàmm yow miy dawal sa oto parce que man usager laa yor naa oto donc du ma nangu sama oto di manqué visite technique du ma nangu sama oto mu wóor ma lii bu ma koy ba visite dañ koy dañ koy daax may dem di wut dara loo xamante ni damay fexe pour di jéem a fexe ñu jàllaleel ma ko ndax li ma yor baaxul noo boobaa maa ngi lor sama bopp lan mooy waral en général chauffeur yi di bàyyi ba bis bi ba dernier jour bi en fait di doog a ñëw di ransi wala di ñëw fi nga xamante ni situation bi day gën a jàpp. bon saagante la saagante la parce que di nga gis sax koo xam ne am na rendez-vous ñëw ñu jox ko 14h mu ñëw 7h taxaw di buuxante ak ki am rendez-vous 7h donc affaire sénégalais la da maatay la daal mën nañ ko tuddee maatay mais buñ ma joxee rendez-vous 14h euh, ñëw 13h30 wu. ñu nekk fii boo ñëwee 13h30 dan lay bàyyi nga dugg. bon sa dama yéex a ñëw dama mën rendez-vous ci matin bi euh, bu loolu laa géré ci matin bi euh, ba ñëw waa ji ki ma fi njëkk fekk ne moom ma ñëw 15h ma ñëw 15h kii ne ma 18h30 ba finalement doo xam léegi ban heure la ñuy respecté wala ban heure la ñu tamit euh, vous trouvez normal que le fait que nga bàyyi ba dernier jour bi ngay doog a ñëw. bon dem man démb démb la ñu woote ñu jox ñu rendez-vous tey donc ñiy tardé xëy na peut-être contrainte de parce que bu fekkente da nga xëy le le nga am rendez-vous nga am sa sa liggéey loo xam ne mënul ñàkk nga def ko il faut nga def ko mënul ñàkk maintenant bu fekkee da nga ñëw fii nag comprendre naa que nga tardé ñu rejeté la beneen heure mais nga ñëw ñu rejeté la benn heure nga ñëw heure boobu ñu rejeté la beneen heure bon man nag loolu laa comprendre bon répercussions yi bëri parce que oto bi bu fekkente ne amul visité du daw su ma ko dawalee sama permis laa ci risqué bon li ma ci risqué bëri na moom am na ñoo xamante ni nag amuñu rendez-vous mais dañuy ñëw mais suñ kiiyee tamit ñoom mën nañ leen a génne waat quoi parce que am na ñoo xamante ne dañuy taamu bis bi quoi moo tax te tamit tey la affaire yi jeex quoi moo tax xam nga dañuy profité ñëw benn yoon moo tax. waral nga bàyyi ba bés bu mujj bi nga doog a ñëw. non xam ne damay ñëw rek dugg du am benn jafe-jafe du am benn por. comme oto yi ñoo war a def bu desee un mois rek nga jël rendez-vous nga ñëw passé mais duñ ko def dañuy bàyyi ba mu jeex ñu ñëw comme fan yi dañ ko maye woon bala 31 bi léegi dañu bàyyi ba délai bi jeex nga xam ne commencé leen jàpp si visite ñoom ñoom ñu bëgg dawandoo ñoo def visite. Euh, selon yow lan mooy waral loolu ndax yeneen jours yi jàll maanaam depuis bi ñu ko commencé affaire yi dafay xat ba ñeneen ñi du ñu am jotu ñëw wala luy waral loolu en waa loolu day am nit léeg-léeg mun na am rendez-vous mu dem ba ñu suba la rendez-vous am otom panne wala mu am empêchement ñëwul loolu tam day indi loolu. non tey laa am rendez-vous quoi pour ñëw tey lan wax tey laa am rendez-vous waaw. ah waaw ñoom ñoom la concerné rek xam nga ku nekk sa temps bi nga mën a am rek ngay ñëw quoi ku nekk sa temps moom la moo lay permettre pour nga mën a ñëw rek. voilà lii moo doonoon nag euh, suñu euh, suñu ay tànk tey ñu demoon seeti ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy def li nga xam ni mooy visite technique maanaam dañoo ñëw saytuwaat euh, seen seen i oto donc euh, voilà li moo nekkoon élément yu ñu leen indil tey di leen jaajëfal bu baax a baax yéen téléspectateurs yu Equivox TV di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci yeneen euh, sujet reportage